de vitesse entre les citoyens. d'accord alors Nguer euh, Thierno Alassane Sall ñëwaat na ci li nga xam ne Ousmane Sonko moom la waxoon keroog ci meeting bi ne am na compte nga xam ne gis nañ fa plus de euh, mille milliards nee nu ko procureur leeral Birahim Seck tamit euh, taxaw na ci li nga xam ne mooy dossier Azer bi dossier ONAS bi parce que nee na nous sommes dans pays boo xam ne dañu bëgg instaurer jub jubal jubbanti alors il est temps que procureur commencé li nga xam ne mooy mbir mi ci ñaari dossier yooyu. mais procureur dañ ñun bi jomaay fay nekkee fii ak waa Pastef daaw naan procureur dafa war am indépendance ñun pour ñun buñ ñu egsee à minute ñoom dañuy may procureur indépendance totale génne seen loxo ci justice bi mais dañoo egsi gën a dugal seen loxo ci justice bi ni ñuy jëfandikoo justice amul benn régime bu ko ma ma ñemee masa def fii ci Sénégal depuis ñu egsi au pouvoir ku àndut ak ñoom loo wax ñu dugal la ci kaso bi Azoura Fall saaga yaayu président de la République kenn dugalu ci kaso Xaadim Bamba Ñaañ toog fii ne magistrat yi ñu affecté dañoo jubadi kenn tudd ko la preuve que Abbas Fall génnelu ay jaasi kenn tudd ko ay nit di saaga nit ñu leen di porter plainte kenn du ko amul du am sax suite loolu am rupture la avec ça ñoom ñu taxaw di xoggali ko aji mbagg naan non rupture jub jubal jubbanti ñoo gën a dëng ci senegal Sénégal waa Pastef ci gën a dëng ñépp nag ci kaw ba ci suuf parce que li ma wax fii yëpp ñoo ko def kenn sosalu leen en plus que Lat Diop dafa am ku ñëw accuser ko corruption ñu jàpp ko Abbas mi nag te xoolal yàlla dogal montant yi ne nii cinq milliards cinq milliards ñu jël kee tëj ci kase bi Abbas nekk ci mbedd bi ba tala woote appel à la révolte appel à la rayante dossier Azer dama ne damaa défier ñëpp sans Michel Sène dafa toog Walfadjri ne bi mu ñëwee dafa renégocier contrat bi ma ne sans Michel Sène waxul dëgg renégocier contrat ak retirer du benn nañ bàyyi dof-dof parce que xar yeeg bëy yi la ñuy wax am na ñoom dégguñu français sama genre yi jànguñu dégguñu ñooñu la ñuy nax contrat boo koy renégocier da ngay ñëw déggoo nañ ci cent mille pour nga defal ma nangamu poto ma ñëw ñu ne la nañ ko renégocier waat nga defal ma plus que ça loolu mooy renégocier ñu xoolaat mbir mi wala boog am na lu ñu jubóowutoon am na loo xam ne dañ ko xoolaat loolu mooy renégocier ci olof mooy waxaale mais bu ma ñëwee nag poto yi ñu waxaale woon war ko def ma jël ko jox ko keneen loolu nekkul renégocier c'est-à-dire loolu retiré la mais marché sax boo ko retiré ci ki ko joxoon mais da ngay defaat appel d'offre société yi ñëw ku nekk ne la man man naa la ko defaree nangam kii ne nangam kii ne nangam mais nga nga jël ko ci kii jox ko alliéem ki mu àndaloon bokk ko kooku nga jël ko nga nangu ko ci kii jox ko ci kii après nga ñëw di ñu manipuler Abbas li ko ci li ko ci taqal dafa bari. man bi Asif Abbas moom maa yendu mbiram bi dégg gis naa muy bindi pelante ak bindi pelante di naan ku ne mu lay yónnee citation Abbas dof dof la gi la war a baax dossier Aser boo yi ñu yoon ci palaato yi ñoo ci xamul dara man xam nga dem naa ba photo quittance bi jëlee impôt domaine man moom dem naa ba photo ko moom téye ko parce que dama déggoon ñu ne ñoom foo usage de foo la Seydou Seydou Seydou kan def mais faux usage de faux nga fay ci quatre-vingt-onze boobu faux nag mi ngi bëgg a metti nga dem impôt domaine yóbbu fa marché bi déclaré ko. ñu defal la nga fay 91 millions ñu defal seen kase signé ñu ne la yow document yi ngi indi fóole waaye jël nañ sa xaalis mais impôt domaine boobu amul Sénégal nañ wax ban réew la ne nañ bàyyi seen dof-dof lu gi faux usage de foo amu fa surfacturation amu fa du dëgg cinq milliards a man lu ne nag am na ku ma dégg mu ne leen 5 milliards du kenn du ko campagne bu dee ci ngeen bëgg a démarrer campagne bi boo ngeen gaaw yàgg yàgg di ngeen goqi xaalis bi xaalis bi da koy goqi parce que lii lekk lu wut. ma ne lekk lu wut Azer AAPO Espagne AAPO Sénégal loolu waxtaane nañ ko fa ba pare dañuy bref rek continuer bi AAPO Sénégal amee marché am ànd kook AAPO Espagne régime bii ñëw gaa yi jaar ci suuf ñu jël doomu sénégalais yi sacrifié leen te mais AAPO Sénégal moo fay quatre-vingt-onze milliards frais impôt domaine frais ARCOP moo fay experts yi quatre-vingt-dix millions ñoom ñëpp ñoom ñoo ngi ci teg seen bët. gañe marché bi léegi nga jël marché bi dem jox ko kee ba pare naan da non da da dañu retiré waat marché bi bare ASER da ñoom ñii sax xamuñu ko boloke marché bi waa Pastef fi ci jëmmi boppam ñe mooy ñi ñu yónni ci plateau yi Ousmane Sonko mën a xam na Diomaye xam ñoom sib nañu. ci suuf kaaya dama ne waa am na écho écho yi ngay dégg nag mooy dëgg ka bloqué ka bind ARCOP ka bind ARCOP lettre ba ñu suspendre marché bi ñoom ñoom leader yi xam nañ ko xam nga coow ASER lu tey dañu réglé ko élection yi. y a des yu dem ba ci ñoom Seydou kan pour ñu négocier ak ñoom tëpp tëppal mbir mi ba élection yi passé ñu mën ko régler ñoo la gën a xam ne ak ah ASER tooxi doonaa ci ne ba bokk banque Santander bi nga xam ne moom moom moom moo finance war a finance financer procès bi mais moom dafa dugal 37 milliards léegi 37 milliards yooyu banque Santander dugal nee na moom gisul benn lampe bu ñu taxaw te xaalis bi génn na compte bi mais marché kay bu ñu ko suspendre normalement xaalis bi warul génn ci compte bi parce que xaalis bi en réalité nee nañ bi mu nee curux ci banque bi rek daanaka ca lañ ne ko këfit maanaam xaalis bi yaakaar naa ko ko doon jël moom dafa toogoon ci buntu banque bi di xaar teg ni ko saaneer di waxee. moo ngi fa euh, kii moo fa nekk. non non maanaam compte compte bi nga xam ne fa la ko banque Santander dugal déplacé nañ ko fa mm-hmm. c'est-à-dire espagnol yi tibb nañ xaalis bi moom ba téye en attendant mais bloqué nañ marché bi mënuñu def benn travaux mais dañoo war a delloo xaalis bi mais espagnol yi boo gisee mënuñu delloo xaalis bi est-ce que du 5 milliards yi ci manqué mais boo retiré 37 milliards mënoo delloo 30 32 milliards quand même 37 milliards yëpp nga mën a delloo te mbirum commission nag mbirum courtier xam nañ ni muy demee booy wut appartement courtier bi day jël wàllam avance bi njëkk dugg lay jël Abbas courtier la wala du ci courtier yoon da ko war a leeral te Abbas moo jiite mine ak énergie fële ca assemblée. kon xam nga Abbas moo gën a xam contrat bi booy bi rax ci dolli Sadiq Top moo takkal Abbas nag Sadiq Top moo toog TFM mu ne man ak Abbas Fall ñoo ne booy bi marché bi du ci dal ah toute action de l'homme est toujours guidée par l'intérêt ou la folie Abbas Fall ban intérêt la am ci marché bi Abbas Fall ban intérêt la ci marché bi banaan booy bi bu ko signé te Seydou Kane ñoom ñu ay sénégalais comme moom intérêt bi laa bëgg a xam man li ne ci ginnaaw. ba Abbas man cee teg bakkanam pour bu ñu signé marché bi sa deextoo ba ko wax de loolu man laa bëgg xam te yaakaar naa kii war na ko xam intérêt bi dof dof lu nañ ko bàyyi ñii élection législative yi laa la wax moo ñu régler problème ASER. d'accord banque loolu dëgg loolu moom bu ci débat di ci sonal sa bopp. tas mi ngi mi ngi mi ngi laaj procureur ci pour ubbi ci enquête ngir ñu procureur. procureur nee na la tant que dagguñu cordon bi nekk digganteem ak ministre de la justice. li ko Sonko laaj lay wax li ko Sonko laajul mënu ko wax tey bu fekkoon ne Ousmane Diagne ko wane ko autosaisirul daar daar day autosaisiru quand même mais Ousmane Diagne woowu ko procureur nee naa la ñun chaque jour que man li may xeex mooy procureur am indépendance que bu ñu nee ko Abdou Nguer nga toog fële wala Abdou Nguer def na lee mu sañ jóg ci sañ-sañam faj ko pas mu naan kii militant Pastef la saaga na premier ministre loo ci xam loolu du justice loolu sostis la. te loolu lañ doon bañ ñoom ñii loolu lañ daan mbubboo ndeke dañ ko daan mbubboo rek banque bu def mille compte bu def CVA woon nee naa la mooy banque bi ëpp chiffre defar fii ci réew mi trois cent soixante dix mill personnes ñoo fa dugal xaalis deux mille vingt trois deux mille vingt quatre bi ñu ko xayma xaalis boobu yëpp bi ñu ko takkee xam nga ñaata la mille cinq mille cinq cent trois milliards kon c'est impossible que waaw xam nga kon c'est impossible que compte bu def mille milliards am fa te Sénégal kenn mënu fee dóor mille milliards mënta ne. rapport yëpp boo demee IGE IGF e yëpp nga dajale rapport yi calculé li ñu ci génneel ci détournement am. Covid bi mais Covid bi on parlait de plus ci Covid Covid bi 1000 milliards yi jëloo moo ci am problème du 1000 milliards yëpp ñii loolu lañ doon campagne di nax nit ñi ak mbirum góor jigéen ñi nga xam teg nañ ko ci suuf campagne bi ren dégguñu mbirum góor jigéen de te war ngeen cee wax nag war ngeen am ngor nag dellu wax la ngeen cee doon wax yéen góor marché orom boobu sax ak ab góor jigéen lañ ko jox. moom moo dem négocier ji marché bi pour pour ñu lebal ñu lebal ñu xaalis JP Morgan góor jigéen la JP Morgan góor jigéen la te ñaari lebi yi ñu lebi yépp waa passif moom lañ jox mu dem ñun góor jigéen mooy lebi suñu tur Sénégal yàgg yàgg musiba naaru laay dina fi wàcc parce que góor jigéen yàlla bugg ko te ñi ngi leen di jox doole mooy lan ñun suñu tur ci la ñuy dem di leb. d'accord waaw. d'accord alors monsieur Dia ñu euh, sànni sa kàddu ci euh, dossier Azerbaïdjan ONAS bi parce que euh, Azer ak compte bi Ousmane ko wax ne am na plus de mille milliards te ñu teg ko loxo ki nga xam ne mooy Birahim Seck moom mi ngi sàkku procureur ubbi enquête ngir ñu leeral mbir mi ñu fàttali ni rek